ndax ñun si rajo Rewmi FM tey nag euh, li nga xam ni moom moo jëm ci gox bi am yéene rek dalal ki nga xam ni moom moo di euh, Samba Ndiaye nekk conseiller fële ca diwaanu commune bu lem nekk itam coordonnateur collectif bi nga xam ni moom moo jëm ci conseil municipaux yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ca diwaan bi ni mel umpale woon nii fan yii yëpp euh, dégg ngeen seen conférence de presse bi nga xam ni ñoom amaloon nañ ko fii am lu nga xam ne dinañ ko doon jokkaat bi euh, maire bi waaye nag dinañ waxtaanee lépp loo xam ne nag aju ci commune bu HLM ñu ngi lay dalal bu baax sëñ bi Samba Ndiaye. waaw maa ngi lay fay bu baax. Euh, monsieur Dramé di la jaajëfal bu baax ci invitation bi. Mhm. alors tey euh, laata ñuy dugg rek ci waxtaan wi bu baax gis nañ ni tey coronavirus bi euh, ñu ngi autorités yi ñu ngi wax ni maîtriser nañ mbir mi ba tey li nga xam ne moo jëm ci chiffres yi mu ngay gën di wàññeeku lan nga am commentaire bi nga xam ne rek da nga koy sànni ci wàllu yu ni mel. waaw je vous remercie monsieur Dramé maa ngi nuyu population HLM bi yëpp. Mhm. Euh, sa auditeurs yi ak. internet yi lay suivre ci sa site. Mhm. <clears throat> donc euh, li nga wax ci Covid bi Covid bi moom. Mhm. wax dëgg yàlla tegoon na jaaxle population bi yëpp. Mhm. mais suñu borom def na ci yërmande daal. parce que par rapport ak li ñu doon foog euh, gis nañ ni mi ngi wàññeeku bu baax a baax. waaw parce que li ma ci gën a marqué mooy solidarité. solidarité bi nga xam ne population wu Sénégal. Mhm. Sénégalais bi def na ko euh, envers tout le monde. Mhm. la population. Mhm. donc ñu ni à notre niveau nous la société civile. bi yëf yi tàmbalee. Euh, am na ay activités yu ñu doon mëne au niveau de la commune. waaw parce que gis naa ni association yu bari. doon nañ def des journées de sensibilisation. en même di distribuer ay masques. Mhm. ba pare di joxe ay gel <laughs> waaw même man nii sax am amu niveau sama doole bëriwul mais mhm. xamoon naa ni population bi ñu ngi dund lu metti te boobu activités yi mi ngi commencé woon taxaw mhm. koñ bi nga dëkk boo ñëwee di nga gis laa situation bu ma jël ay effort bon jël quelque denrées distribué ko ñi nga xam ne samay am di jàmm lañ daal am na lu mu wone juñu nga ko léegi solidarité ci naka la feeñee ci covid bi waaw solidarité mooy que dama dama gis ni bon man je ne pensais même pas que ñu à notre niveau dans la commune. Mmh. franchement je les félicite de passage hein, les associations. Mhm. ñoom ni ñu mënee combat bi moi je les félicite encore avant que commune bi di adhérer ci mhm. combat bi sax ñoom dañ ko tàmbali à leur niveau. waaw parce que gis naa activité yu bëree bëri te jur na soldate boo xam ne vraiment. Mhm. boo taxawee rek di nga gis ni lii moom vraiment c'est la ko quoi. ok waaw ñu gis bi euh, ba mu lawee jàngoro bi di law mu indi ñenn ñi njàqare léegi tey bu ñu demoon bu ñu demoon ay cent waaye lim bi day dem na ba fukk. Mhm. bu ñuy tuddee lim bi dafay wàcc bu baax. Mhm. ndax ay jéego gouvernement la wala askan wi ñoo ñoo dem adhéré ci li ñu mel jàpp ci xeex bi. waaw loolu moom question bu am solo la. Mhm. parce que en un moment donné bi yëf yi di di di tàmbali Sénégalais yi gëmuñu ko woon. Mhm. mais maintenant bi ñuy dem ba bi ñu demee ba ci biir bi tam bon je les félicite de passage. parce que mhm. am na ay disposition ak ay. <coughs> jumtuwaay ay jumtuwaay yoo xam ne teg na ko. population bi pour que ñoom ñu suivre les instructions. te loolu moo ñu dimbali. mais port de masque yi moom. li wàccee feebar bi ci la bokk. waaw loolu moom. moom naka sénégalais yëpp xam. demoon na benn askan benn moment masque bi daanuñ ko sol mais léegi moom. dafa mel ni foo tourné di nga gis danga jàpp ni loolu bokk na ci lu yombal euh, mbas bi war fi gaaw jóge. effectivement looloo ko looloo ko wàññi parce que dama ci doon waxtaan nag euh, sama benn xaritu médecin boo xam ne ci ci commission Covid bi la bokk sax mais. d'après li ñu échange yi ñu am. Mhm. loolu loolu mooy tax euh, feebar wàññi wàññeeku. Mhm. parce que thermoflash yi sax à un moment donné da nga nit dina am Covid sax. Mhm. nga dugg fenn ñu teg ko thermoflash. Euh, du ko wane fekk moom il est porteur. donc yooyu yëpp biñ ko découvrir mu am ay ñoo xam ne dañuy am euh, kii bi. jàngoro bi jàngoro bi. di ko wàll nit ñi tey sans pour autant am ay symptômes. Mm-hmm. yooyu yëpp ci la ci la amoon mais maintenant bi ñu comprendre port de masque bi moom. Mm-hmm. day téye feebar même boo feebaree da koy téye. Mm-hmm. si vous n'êtes pas malade da lay donc loolu bokk na ci lii wàññi feebar bu baax a baax. parce que demoon nañ benn jamono ndaw ñi dégguñu woon message bi bu baax kon mi ngi mel ni su ma la déggee bu baax ñu ngi dégg léegi message bu jëm ci jàngoroy coronavirus bi. waaw waaw ñu ngi koy dégg franchement. parce que je je sais que moom ñoom mën naa ne sax ñoom ñoo gagné combat bi ndaw ñi waaw ñoo ko gagné ci naka mhm. waaw dañ ci impliqué wu par mhm. euh, via des associations et cetera quoi mhm. waaw association yi nga xam ne ñoo doon dajaloo di sensibiliser et tout ça donc dañu adhéré à cent pour cent quoi. Mhm. parce que ku ne ku ne Covid boo tuddee HLM marché HLM ngay tudd foofu nga xam ne da doon am affluence kon tey janga jàpp ni tey mbir mi nu mu wàññeekoo noonu mais est-ce itam ragaluñu itam mbir mi amaat doole ndax ñu ngi dem ci ay cérémonie religieuse li ci mel ni tey màggal Touba ak gàmmu gi nga xam ni moom lañ ñu dëgmal est-ce que comme ni ko sëñ bi diglee ku ci nekk booy dem ci bërëb bu sell boobu noonu nga takk say masque daal di aar sa bopp aar ñi nga xam ne nag ñoom la dëkkal est-ce que tey askan wi tey baru ñu bàyyi xel li ni mel. waaw jar na jar na bàyyi xel nag parce que ñun même euh, dama lay jox exemple marché HLM bi sax parce que sama collègue conseiller ñi ngi may dégg. Mhm. bi yëf tàmbalee man bokkoon naa ci taxaw euh, ñett ne marché bi dañ ko war a tëj. Mhm. parce que lieu la boo xam ne euh, dafa fermé wu. day drainer foule day drainer foule. Mm-hmm. donc non seulement day drainer foule mais dafa fermé wu. ok lam plan bi ni mu tëddee ak euh, centre commercial yeeg euh, boo traversé centre commercial exemple di dugg si biir. Mm-hmm. di nga gis ni lii c'est un lieu fermé. Mm-hmm. te virus dafa gaaw a développé surtout façon virus bi nga xam ne moom mooy. moom moom la Covid Covid 19. donc bi loolu amee. Euh, man bokkoon naa ci ñi taxaw di ñaxtu. Mhm. pour que ñu tëj marché bi pour un moment. Mhm. mais xam nga rek les commerçants on peut pas euh, lutter contre parce que ñoom xam nga. Mhm. dañuy jàpp ni lii seen dañuy daan seen doole. te buñ leen te quelque temps ñu day day am ay ay conséquences. ci seen ci seen capital. donc loolu lépp comprendre nañ ko mais comme li nga wax damay région li ngay wax loolu bu euh, même bu wàññeekoo tamit. ñun war nañu jël ay précautions. màggal gi ñu jëm sëriñ bi li mu wax leer na. Mhm. moom ci boppam foo ko fekk. mu ngi takk masque mu ngi takk masque. Mhm. donc loolu doy na njàngale. Mhm. bu dee sëriñ bi ngay fekki moom nga gëm moom nga yaakaar bu nee la lii baaxul dama koy moytu. moom bu ko moytoo yow war nga ko moytu. maintenant am na je m'en yi nga xam ne comme sama genre la ñoom. ñooñu mënuloo leen dara daal. ou bien dañoo am négligence yoo xam ne c'est leurs habitudes. donc maa ngi leen di ñaan de euh, à travers votre votre chaîne. Mhm. ñoom ñu ñu takk masque yi. Mhm. pour protéger non seulement pour se protéger mais ñu protéger. Mhm. ña ñuy fekki. parce que ñenn ñi dañ naan bu chutewaatee fii ñëwaat fii dina defaat jéeya te maara de bi sii na kon jot na tey ñu gën a ba farlu ci wàllu wi ni mel. mais bien sûr man j'ai un ami qui est dama jox à l' euh, euh, kii j'ai un ami qui est <laughs> moom bi Covid bi euh, di def ravage en it en Italie. Mm-hmm. moom moom a était pas contaminé mais actuellement ni il est contaminé. pour te dire que day day dem di ñëwaat. Chine noonu la defoon dafa dem ba xam nga Chine kenn ëpp leen ay moyens. bien sûr mais dañoo dem ba si affaire bi di ñëwaat. Mm-hmm. parce que boo ci wanee négligence ou bien wane nga ni gagné naa ko rek. Mm-hmm. dafay am prox ndool bu muy jaral. donc ñu bàyyi si xel bu baax waaw ñu bàyyi ci xel bu baax daal. Mhm. alors Covid bi ba mu ñëwee euh, génne woon nañ koppar gu bari euh, ci misaal loolu bokkoon na ci seen conférence de presse bi nga xam ni amaloon ngeen ko fan yi ñu génn ci li nga xam ni nag moom moo jëm ci denrées yi nga xam ni joxe nañ ko ci commune HLM seen conférence de presse bi junju ngeen ko wax ngeen ne itam lang koppar gu mu génne pour jox waa HLM denrée gi am na lu ci seen xel tey tuuti est-ce que mun nga ñu expliquer ñu xam. waaw waaw loolu question bu am solo la. te bokk na li tax sax man ma teew fii. waaw donc man euh, dinaa ko dinaa ko expliquer rapidement. que Covid bi bi mu amee. Euh, dañ ne ñun institution lañ te dañoo yore population. war nañ leen jàppale. sur tout les plans non seulement dañ leen war a jàppale ci moyens yu bi. Mhm. mais tamit xamoon nañu Covid bi dafa am ay conséquences yu mu tegoon population bi. Mhm. ba nit ñi nga xam ne dañ doon xëy di am. astut euh, astut. Mm-hmm. Mhm. amatuñ ko. léegi ñu ne dañuy dañ di jàppale sur les moyens de lutte. ci ay masques ak euh, produits. hydroalcoolique hydroalcoolique ak euh, et cetera. ak ay denrées ay denrées. commune bi génne ñaata ci gafaam. waaw commune bi. euh, globalement deux cent la. au lieu de deux cent vingt millions parce que bi loolu amee. ñoom bon je quand ma wax sax suñu le maire. avec son cabinet dañu génne deux cent vingt millions dans les réseaux sociaux. mën na leen da wax information yi ni mu demee. def dispatching bi expliquer population bi. looloo waral sax coow li. parce que bi ñu bi ñu defee bi ñu defee publication boobu ne dañoo génne deux deux cent yi. c'était pas ok lan la woon. waaw mhm. loolu ay ordre de ñu doon def la euh, ci conseil bi. Mhm. globalement li ñu ci doon def yëpp la somme c'était à deux cent vingt millions y compris Covid beeg somme bi ñuy alloué Covid bi. Mhm. yoolu loolu moo andi woon euh, kii boobu. coow li séance su. non euh, su conseil boobu. léegi bi bi loolu amee. ñu validé deux cent deux million deux cent deux millions yi ñu ne dañuy jël cent vingt millions. jënd ci ay denrées alimentaires. Mhm. ceeb ak diwlin ak yeneen seen. waaw mhm. jënd 31 millions jënd ci ay hydroalcoolique ak ay masques et mhm. ba pare euh, jox 15 centre de santé bi nekk HLM. 15 millions beneen structure de santé bi nekk OGHLM. muy 30 millions. donc globalement boo xa calculer xaalis bi ak euh, euh, dépenses diverses yi. boo coût bi ça revient deux cent deux millions okay. si je me trompe mhm. donc loolu moo àndoon léegi bi loolu amee mhm. c'était au mois d'avril mhm. euh, fekk na état tamit moom génnee génne moom tam di joxe ñu le maire euh, génne benn arrêté ne day dañuy dañuy ñun euh, population HLM yi ak quartier dañuy constitué wu ay comité de veille comité de veille yooyu bi ñu ko defee ba pare moo am ay président am ay Euh, commission yi ngeen taxawal waaw mhm. waaw dans toute la tout la commune quoi. ok bi loolu amee euh, ñu ñu ne dañuy euh, bi préfet ñëw installé ko. Mhm. parce que boobu tamit am na. Euh, état waroon na joxe te ñu def ñaari comité mhm. ñu ne dañuy garder comité boobu moom mu def bu état def bu bu mairie mhm. maintenant man li ma doon reproché sax d'abord euh, autant mhm. que ñoom lu tax ñu téye seen denrée di xaar état joxe yow ñaawlu nga loolu quoi ñaawlu naa loolu te c'était suspect parce que loolu li tax ma depuis lool nag ci laa bàyyi xel ci affaire Covid bi quoi man d'habitude ñoom xam nañ ni les de de denrées ou bien quelque chose à la mairie. Mm -hmm. j'ai pas j'ai le temps de suivre. Mm-hmm. mais bi loolu amee ñoom ñu ne ñett dañuy téye ba ñu valider kii bi en en avril. Mm-hmm. conseil bi pour ñu jënd ki yooyu denrées yeeg yooyu. Mm-hmm. Euh, bi bi bi loolu amee. dañoo dañoo euh, dañu dañu téye dañu téye kii bi. seen seen daara yi ñu waroon joxe. daara yi. Uh-huh. ne dañuy bàyyi ba état joxe. Uh-huh. ñu soo a joxe. ñu door a joxe. yow gisoo ne loolu normal la loolu. non loolu loolu normal et puis ñoom ils n'ont pas bon ñun nous à notre niveau sax ñoom dañu waroon wax dëgg ñu conseiller. Uh-huh. parce que en fait c'était pas ça. ok c'était pas ça donc. Euh, kon lan la woon. non véritablement je pense que problème bi problème mu au niveau de la perception la woon. parce que xam nga bi ñu ko validé xam naa dafa am ay lenteur pour bon trésor bi génn et cetera. Mhm. et puis d'ailleurs jusqu'à présent dafa am problème au niveau de la perception. Mhm. waaw parce que loolu lépp mi ngi ci woon mais bi bon trésor bi génnee la dame a essayé de d'alimenter la mairie mais euh, pas suffisamment. Mhm. ci li ma jàpp. loolu loolu ay problème loolu yoo xam ne ñoom à leur niveau bon ñi gérer administration bi ñoom ñoo ñoom ñoo fauté quoi. ok waaw. léegi ñuy dem ngeen génn ŋàññi ngeen doxalin bi wala koppar gi nuñ ko dugalee ci askan wi yéen d'accordu leen ci lan ngeen ci d'accordul waaw li ñu ci d'accordul mooy que bi loolu amee mhm. ba nga xamante ne euh, y a une dame qui le marché mhm. te dame boobu moom mooy moo gagné marché sax bu Sacré-Cœur mhm. moo alimenté woon Barth te man pour te dire man dama Covid bi man dama ci doon liggéey. Mhm. dama ci doon liggéey yeneen commune mais pas notre commune. Mhm. parce que ñoom ñu ci bari xamuñu loolu. Mhm. li tax may découvrir beaucoup de choses. c'est à travers. kon faay yi nga gis bari na. bari na te du yoo xam ne da nga koy wili pande di ko wax ni de gauche à droite. lu am la. waaw lu am la quoi. donc moom bi bi loolu amee. man dama jàpp ni faute bi non seulement ci daam bi la. mais aussi tam ci administration bi. mooy entrepreneur bi. non mooy mooy. ki marché bi fournisseur bi. fournisseur bi waaw. parce que mhm. ñoom ni ñuy ni ñuy ni ñuy joxee marché rek. man mhm. à la mairie man euh, dëgg neex yàlla c'est suspect quoi. papier yi leerul. non je man daal da du loo xam ne man mën naa ne lii lu jub la lu baax la. Mhm. loolu daal foofu laa mën a yem. ànd à beneen niveau nag man danaa am leen lu mu wax. comprendre nga. ok mais bi loolu amee. yow boo gañee marché. ñun ñëpp dañuy dañuy dañuy wut ay marché di ko am. Mhm. boo gañee marché ñu jox la bon trésor. Mhm. mën nga yéex a euh, jot ci xaalis bi. mais da mais da ngay liggéey ay banque mhm. banques yi boo fiable ñoom boo leen laajee ne dama bëgg dama gañe marché wan leen bon trésor. bu kuñ ko wan di nga xam ne kii xaalis buy génn la. adduna ba keroog même bu. aduna day tukki ginnaaw suba sax da da da nga ci jot. donc loolu warul causer problème nga dem andi nga def la nécessaire pour. jënd denrée yi nga moom moom nga digaale ak ñoom. nga jàpp ni loolu amul ko non man dama jàpp ni loolu am na lu ci nekk. Mhm. parce que euh, ñoom bi loolu amee. Mhm. dafa amoon ay partenaires yoo xam ne dañoo jàppale woon la commune. Okay. ñoo xam ne comme euh, la. la ville de Dakar ville de Dakar mm-hmm. joxe woon na quinze tonnes de riz. Mm-hmm. pour jàppale ak ñeneen. Mm-hmm. am na benn commerçant bu euh, bu mais yooyu yëpp. ñun mënuñ ci am certitude parce que recherché na wuñu. Euh, recherché te fekk wuñu fi ñu koy joxe. parce que c'est des informations qu'on nous a données. bi loolu amee ak ma ne ñoom ñuy joxe. ba population bi yor ay bon. dem di jëli seen kit alimentaire ñu ne leen. ceeb bi jeex na diwlin bi jeex na. Mhm. te man romb naa leen récemment ñuy wàcce suukar xaw ma. Mhm. ci benn camion. sa veut dire que yi ni ñu koy dagg-daggee man dox ma jaaxal quoi. ok je pense que y a quelque chose lu ci nekk loo xam ne il faut ñu leeral ko. Mhm. da jàpp ni waxuñu lépp. waaw waxuñu lépp ou bien dañuy même les conseillers yi nga xam ne sax dañuy nekk ci camp Pape Seck. naan na dañ koy jéem a défendre ñoom maîtriser wuñu dara. man je vous le dis. wuñu dara. sur les domaines des fois da bu ma waxee ci presse bi sax ci la ñuy door a découvrir l'autre jour bi ma defee plateau Africa 7 mhm. ci la ma ay conseils yoo xam ne celle de l'autre côté di ma woon naa ma xamee wuñ ko woon nii nangam nangam ma ko bi bien mhm. mhm. na ñoo xam ne woo nañ ma ne ma carrément ko noonu nangam nangam donc bref pense que ñoom li li ñu doxalee ci Covid bi dañu juum te xam naa ni au niveau de la perception euh, le percepteur mhm. daf ñoom xam nga ñoom ils sont bien formés te xam na euh, avec l'acte trois mhm. dafay dañuy jël seen précaution par rapport mhm. par rapport ak commune yi am na yoo xam ne même bu commune bi validé sax bu ñu ñëwee ñoom dañuy xool lu jaadu ñu def ko yooyu yëpp c'est problème problèmes qui yoo xam ne bokk na ci dossier bi ok kon ndëngte yooyu ak njuumte yooyu rek euh, da jàpp ni kon séddale nañ dund gi am na ñuy bedd ci commune bi non du bedd yi dafa am ñoo xam ne dañoo yor ay détenteur de maanaam bon yi. Mhm. comité yi ñoo ko doon joxe. Mhm. mais est-ce que yegg na ci ñëpp. mais je pense que yegg na parce que comité yi. Mhm. c'est pas le maire qui. bien sûr maire bi la population. c'est la population d'abord. donc bi ñu ñëwee dañu recenser les personnes yi nga xam ne amuñu état. Mhm. amuñu bourse euh, nekkuñu ci bourse familiale. Mhm. waaw ñu ñu ñu ñu dugal leen ci. Mhm. maintenant problème bi li liy problème bi mooy que dafa am ñoo xam ne dañuy yore bon. xam nga war a jot kit alimentaire bi dem foofu. ñu ne ñu ne ñu ne leen ceeb beeg diwlin bi ñëw. loo xam ne dañ ko valider depuis le mois d' avril. réclamation boobu yegg na ci yéen. bien sûr parce que ñaata la lim bi ci commune bi lim bi ñaata la ñi nga xam ne dem nañ réclamation te amul. bëri na. ok na et je pense que le premier adjoint moom war na ci xam dara parce que moom moo ko yore mais ñun. Mhm. xaman naka lañ ko xamee dëgg dëgg. Mhm. ñoom bien avant ñuy. yéen naka ngeen def ba gis faay bi. waaw ñun dama lay wax réclamation yi. Mhm. dañu dañu am benn plateforme. boo xam ne toutes les entités de la population ci la bokk. donc des fois dañuy dugal ay audio di rek def day réclame di di di ñaxtu ci mairie bi et cetera. waaw te côté yëpp la nag. am na mhm. ñoo xam ne côté Sodida lañ nekk ñii Cité Port. Mhm. ñii HLM 5 HLM 5. HLM 6. HLM 6 ñoom yëpp. Mhm. di réclamer ni ñoom dañoo yore bon. dem di récupérer seen kit alimentaire ñu ne leen ceeb amul duñu am. noonu lañ ko xamee. ci lañ xamee ni nag lii am na lu ci nekk. dëgg sarax bu ci nekk. waaw am na lu ci nekk. waaw ok léegi ngeen dem fu wànn ki wànnati di mujj ki gëtëm fu ngeen dem ak euh, lan lañ leen wax. léegi laata lool ba d'abord ba pare naka ngeen gisee ni maire bi naka la yore gestion Covid bi naka naka ngeen ko gisee yorin bi. waaw yorin bi moom man du ma ne. Covid bi <laughs> waaw Covid bi mm-hmm. waaw pour Covid bi rek. Mm-hmm. moom muccul ay moom parce que ñun ba léegi ñu ngi ci ay problème mm-hmm. parce que problème la mais bon yi ba léegi la dame qui a gagné le le marché moom ba léegi alimenté wul carrément. ba léegi Covid ban ko lancé ba tey. am na lu des nee na nee na écho yi ma jël mooy mooy que moom yorul xaalis parce que le percepteur n'a pas encore payé et cetera mais loolu man jë bu grave la. faute bu grave la ñoom ça veut dire que ñoom ni ñuy joxee marché. Mhm. xamoon naan dinañ am problème. xel tey nga ko waaw parce que moi je ñoom xamuñu nag ne ñun à l'intérieur du conseil dafa am ñoo xam ne dañuy démarché marché. Mhm. ñoom mosuñu xam sax sama liggéey carrément. Mhm. xamuñu ko mais ñoom bu ñu man je travaille avec de secrétaires municipaux et cetera. des communes même. ñu ci bëri dama ko xam. mais du ma du ma du ma du ma du ma débat du ma sax feeñal loolu. waaw man mais maintenant Covid moom dama dem ba xam ne lii il faut que. war na la lu bari. waaw ñu taper sur la table. <laughs> pour que ñoom population bi nga xam ne dañoo amoon yaakaar nga jox leen bon ne ñii dañ dañ leen a war a dimbali. mooy mhm. ñu mën ci jot. Euh, avec des kits alimentaires et cetera. mairie bi yëg na ko lu mu ci wax. yëg na ko mais ba léegi à leur niveau dégguma benn déclaration ci ñoom de. Mhm. par rapport à ça mais en tout cas daal y a véritablement des problèmes. Mhm. waaw bind ngeen. Euh, réclamation yi juste euh, population bi. Mm-hmm. am na ñu ñu waxoon ne dañuy dajaloo dem si média yi. Mm-hmm. mais dafa coïncider ak ñun suñu problème yi ñu am avec le maire. Mm-hmm. que ñun ñu ñu jël ko dugal ko ci biir. waaw noonu la demee mais am na ñoo xam ne dañu da doon dem ci presse bi dem kii. taxaw wax ne carrément. ay bon ngi nii yoo xam ne ñu ngi ko yore depuis tant de jours et puis de mois et puis on n'arrive pas récupérer. te dégg nañ itam maire bi ne euh, joxe bi mate na kon xëy na njuumte dafa am. non ci seen gis-gis yéen. dafa juum le maire loolu bu ko waxee dafa juum am na ñoo xam ne dañu yore ay bon jotaguñu seen kit alimentaire xam nga loolu. <laughs> nit du ñëwee noonu yàlla. toog di ko wax ñooñu dañu ko réclamer ba ñun ñu yëg ko dañu yore benn plateforme. Mhm. boo xam ne entité population euh, commune bi yëpp ci lañ bokk. Mhm. cité des eaux ba cité port. Mhm. ba parc amusut ci ginnaaw ñoom ñëpp ci lañ bokk. amul benn coin boo xam ne amuñu fa benn élément boo xam ne du dugg ci plateforme lu fa xew. da dañu koy wax ci plateforme bi. Mhm. donc dafa coïncider avec problème yi ñu am euh, avec le maire ñu dugal ko ci. ok waaw noonu la demee. Mhm. kon ba léegi amugoo leen benn réaction officielle te moo ne ay conseillers ngeen da ngeen war a am xibaar gu wér ci wàllu wi ni mel ba léegi jote goo leen. non joteeguñu parce que nous on attend le conseil. conseil bi kañ la. conseil bi section octobre war nañ ko def. Mhm. war nañ ko def ñun dañuy xaar convocation yi et on se prépare. on se prépare parce que tamit y a beaucoup de choses à discuter. Mhm. donc loolu ñun mu xam nga ko mën nga xam ay information mais am na loo xam ne ce serait important nga toog ci conseil euh, wax ko. Mhm. te am na yoo xam ne sax je le garde pour le conseil. Mhm. waaw mais am na ñoo xam ne sax même collectif bi ma nekk. du lépp lépp lépp lépp lay partagé. waaw parce que tamit nit da ngay xam savoir raison garder quoi. collectif bi ñaata ngeen ci ñaata conseillers. waaw nous on est treize conseillers. Mhm. malgré que am na ñoo xam ne ñu ngi <laughs> je les comprends parce que xam nga. ñu ngi bàyyeeku ñu ngi parce que bon loolu moom c'est la tradition au Sénégal moi je les comprends ñun mhm. xamuñu dañoo yàgg a nekk ci ay wetu politique ak ay combat ak yooyu. Mhm. yooyu ça ça ne nous ébranle pas. y a des gens yoo xam ne ils ont des doubles personnalités. mais nag par contre je les félicite de passage. presque je vous dis les quatre-vingt-dix pour cent du collectif sont des hommes de valeur. Mhm. macha allah parce que on de valeur mooy nga ñëw euh, wan ko dara loo xam ne wóor na ne ko lii li ngay dox dëgg la. Mhm. moom mu teg ko ci valeur ànd ceeg yow. Mhm. loolu mooy nitu valeur moi je ne parle pas des autres de l'autre côté. Mhm. di mais ci ñaata conseils am treize conseils. dafa mel ni na ñu la. Mhm. presque je pouvais avoir vingt conseils. am na ay conseils yoo xam ne je vais pas du wax ci parce que tamit. Mhm. naa bàyyi sax di citer les personnes. parce que tur yi amul problème amul problème waaw non dootuma ko def juste xam nga rek ñun duñu ay politique ñun dañu naturel comme ni may waxee yow nii. noonu laay waxee sama saal noonu laay waxee feneen. xamuñu les appréciations ak yooyu. donc man je pouvais avoir vingt signataires. Mhm. yoo xam ne dañ ma parce que ñenn ñi dañ ma jox accord par téléphone ñenn ñaar ñi nekkuñu Dakar. Mhm. ñeneen ñi dañ leen ragal parce que buñ leen demee woo leen woo su suñu réunion. Mhm. mën nañu partager suñu information. loolu moo tax ñu dawle loolu moo tax ñu yem ci treize yi mais on pouvait avoir plus te am na ñu bari sax ba ñu ko yëgee. dañ ne lu tax waxu ma ko ak nangam nangam. am na ñoo xam ne bokk nañ seen combat bi mais fësuñu. fësuñu. te ñu ngi bokk ak yéen combat bi bien sûr. Mhm. signé wuñu sax pour te dire signé wuñu parce que amuñu temps boobu je devais déposer. Euh, kii bi euh, recours administratif et puis man j' ai temps de de tourner kii man comme am naa une une rek. Mhm. naa déposer affaire bi quoi. une boobu dañuy wax rek tey gox bi di dalal ki nga xam ni moom moo di Samba Ndiaye nekk conseiller ci commune bu par bu HLM maa ngi lay dëkkal par Parcelles Assainies ak HLM nekk itam coordonnateur collectif conseil municipaux yu nekk ci diwaanu HLM. boobu problème la itam jukki ngeen itam beneen problème bi nga xam ni ñu baree ngi ci euh, am njàkkare. mbirum terrain lan moo xew. waaw parce que yëf yi fi mu tàmbalee euh, mooy benn centre commercial boo xam ne dañ ko tabax ci garage yu Sétud bi nekk rond point mhm. bon xam nga Sétud euh, je pense que mooy conseil exécutif. Mhm, ñooy yor wàllum woto yi. garage mhm, léegi Sétud bu bëggee tabax garage. day bind état day saisir état. bind ko defar plan et cetera ne tel endroit dama fa bëgg a def garage na nga naan mhm. daggal ko xam nga moo ñëpp doole mhm. te bu koy dagg ci ay commune jàmbur la koy dagg mhm. bi mu defee loolu mu tabax garage ba pare mu des benn espace bon espace boobu bi mu desee amoon na sax dégg naa Fass Colobane ñi ngi ko doon revendiquer ne ñoom ci ñoom la bokk ak yooyu pour def fa dara mais il s'est que yàlla dafa dogal ko commune bi moom moo ko mujj jël léegi bi ko commune bi jëlee. Mhm. Euh, euh, le maire. Mhm. bu dee dee def revendication yooyu. Mhm. ba yàlla dogal ñu jox ko espace boobu. pour ñu def fa dara. oui je pense que daf ko war a indi ci conseil municipal bi. mais defu ko. parce que c' est euh, autorisation bi mu ngi ko signé la date du 26 juin 2019. ok date boobu dañoo waroon dem ay élections. pour te dire. li li ci gën a suspect loolu la. date bi mu signé kii parce que revendication boobu euh, Fass Colobane doon def. Euh, mhm. sur cet espace là. Mhm. ak lan lañ foo war a def yooyu loolu ça date bien avant mais dañu nekk ba le 26 juin 2019 ñu signé benn autorisation. Mhm. de construction. te le maire boo signé autorisation c' est parce que vous êtes au courant de tout. oui c' est clair. mais je vous dis que cet espace là CETUD amul du def usage de commerce. loi ko ko mayu ko ko. du def usage de commerce. Mhm. te amul droit di attribuer suuf soo xam ne dañ ko ko attribuer moom parce que. mu koy joxe mu koy joxe. Mhm. même bu fekkee dafa indemniser. parce que mhm. maire peut-être que sax ñoom xamuñu vole yi tax combat bi jóg carrément. combat bi quel que soit alpha combat euh, avantage commune bi lay doon. nee na moom nag moom bu joxee lool li ni mel. Ah. bu ci gañee la nga xam ne moom mooy jëm ci commission yi xam nu ñu koy waxee ci perception yi. Ah. mooy euh, recettes yi. Ah. ci commune bi lay dellu moom loolu la expliqué ginnaaw ba nu ko jëlee fii. non loolu loolu beneen étape la. ok waaw kon continuer sa étape ba pare. étape mhm. bi ma lay wax mooy attribution bi. Mhm. joxe bi mhm. joxe bi. suuf soosu bu ko promoteur bi doon jën rek day frais ay presque sept cent millions wala nangam. bu doon loo xam ne da yow par exemple da nga nekk promoteur di tabax centre commercial boo doon bëgg a tabax benn centre commercial benn espace boo ñëwee da nga koy jënd. ci yoon ci yoon. Mm-hmm. mais attribution la. Mm-hmm. dañ ko ko jox. Mm-hmm. joxin wi nag. ñun dañoo ñëwoon di ko laaj maire. lu mu leen tontu. non dañu njëkk a demander audience d' abord. boole ci estatu HLM bi. Euh, prolongement centre commercial Darou Salam bi. parce que ñun dañoo jàppoon ni. Euh, Sogabek. Mm-hmm. bu bu avec l' acte trois. Mm-hmm. nous avons hérité des conventions. Mm-hmm. nous avons hérité des des. des conventions yoo xam ne. Euh, acte trois bi moo ñu loi bi moo ñu ko jox. comme stade beeg yooyu. parce que stade bi stade communauté bi la lay doon. ci communauté HLM bi. Euh, par rapport bien bien que ASC HLM. ñi ngi naan ñoom. Euh, da ñoom ñoom la ñu mayoon stade bi. Mhm. mais avec l' acte trois le stade appartient euh, la commune des HLM comme ni ko ni ni ñi moomee surtout. de comme Ngor ni ko moom ni mu moomee stade am. exactement ak euh, Pikine ni mu moomee stade am. waaw mhm. communauté bi moo ko moom. ok waaw donc bi loolu amee. ñu mhm. bind ko ñu bind ko lettre. ñu bind ko lettre. d' abord tontu leen non avant lettre bi sax dañoo dañoo. da dañu woo le premier adjoint mhm. ne ko dañoo bëgg audience boo xam ne dañuy dañu am ay question euh, yu ñu bëgg daal que le maire mu tontu ci mu tontu ci mhm. parce que bo autant le maire dafa jëloon recul euh, dem këram euh, ne dafa xaw a tawat daal mhm. léegi ñu dem ci premier adjoint premier adjoint jox ñu rendez-vous mu jox ñu rendez-vous ba pare comme ñu war a daja dajaloo suba onze ci dix bi mu wooñu la veille. mu woo ma ne ma non euh, le maire comme il est il est malade non il peut pas répondre et cetera nañu bàyyi ba mu taaw bu ñëwee kii ko. comme équipe la rek moom mënul ndax mënul woon tontu. bien sûr c' est ça qui nous inquiète. Mhm. parce que bu doon loo xam ne tontu bu yomb la. Mhm. kon polémique yëpp du ci am. ok kon tontu wu ñu leen moo tax ngeen génn. tontu wu wuñu mhm. tontu wuñu ci audience bi. dañ ko annulé. ñu ñu ñu ñu envoyé ko une première lettre. je pense que c' est voici la première de pas demande d'explication demande d'information par rapport à des constructions nang euh, arrêté nangam nangam mm-hmm. il ne nous a pas répondu ñu relancer ko le juin le juin ñu relancer ko une deuxième lettre mm-hmm. je pense que si je ne me perds pas ko mm-hmm. une deuxième lettre tontuwul ah ci lañ xam ne nag ci mhm. y a quelque chose. am na lu am na lu ci am am mhm. na lu ci nekk. Mhm. loo xam ne ñoom peut-être que euh, ils étaient pas prêts à parler. après ñun ci la ñu par notre devoir ñun ñu def suñu recours administratif parce que loi bi loolu la may. ñun conseiller bu gis loo xam ne jaaduwul. da ngay a fexe nu ñu convoqué conseil bi. pour nga mën a nga teg ko la table. ci la ñu def recours administratif recours administratif ci la ñu am tey signataires yi. loolu moo andi ci la collectif te gis nga li ma lay wax ci problème mu Sokabek bi. je mhm. vais je vais en mhm. bi mu gagné bi bi mu defee convention bi avec euh, l' ancien maire de Dakar. Mhm. monsieur Pape Diop. ak euh, le représentant du monde sportif monsieur Tamsi Cissé. depuis lool il n'a pas respecté le contrat. te ba léegi. mi ngi fexe nu mu di tabaxee di jaay ay kantinam. ok jusqu'à fan yi xale yi jóg. commencé di ñaxtu ci terrain bi ci la commencé. Euh, relancer waat travaux yi relancer travaux yi te mhm. ñoom xam euh, même jeunes yi fa njëkkoon dem sax. Mhm. xamuñu ne ñoom c' euh, à leur propre avantage Socabeg ñu ñëw. gis population bi directement. Mhm. wax ak ñoom parce que xam nañu selon les procédures. bi yëf yi tàmbalee ñun dañu dem ci les juristes d' jël convention wu bi. jox jox leen ko ñu cabinet la ñoom ñu étudier kii bi. Mhm. xamal nañ ñu carrément ne Socabeg bu ñu bu ñu ko defoon mise en demeure actuellement ni dina ñàkk lu bëree bëri ci ci ci stade bi. Mhm. donc loolu c' était les avantages que ñoom ñu njëkkante. ne mhm. dañuy dañuy tabax dañuy dañuy eggale stade bi. te or que ñoom depuis lors ñu ngi. continuer di tabax seen centre commercial. donc su ma la déggee problème yu bari na centre bi problème yi bari na problème bari na HLM léegi lii euh, fu ngeen ci toll léegi ba léegi ba ngeen defee seen so amoo leen lu leer li nga xam ni wax nañ leen ko wala teg nañ ko seen loxo. waaw ba ba léegi ñu si lu leer mais nag. Euh, mhm. ñun bi yëf yi tàmbalee. Mhm. ma revenir ci centre commercial bi. Mhm. dañoo commencé di def mener suñu investigation. bi ñuy bindee lettre maire tontu ñu bindal ko lettre tontu ñu def suñu. recours administratif mm-hmm. le préfet le préfet m'a ma m'a reçu bi ma recevoir mu ne ma il faut ngeen am trois quarts conseil mm-hmm. ma xam ne loolu mënul nekk mm-hmm. mu ne léegi li ma leen di digal mooy que ngeen dugal ko ci session octobre bi ngeen discuter ci. dugal ngeen ko ci yéen. non bu ñu tegoo débat d' orientation bu ñu convoqué conseil bi. Mhm. ci lañ koy proposé. est ce jàpp nga ni nañ ko fa dugal. je vous dis la mhm. ëpp ñu sax de. Mhm. moi je pense que ñun conseil bi ñu conseil de valeur la. certes que moom il a des personnes yoo xam ne. sont proches de lui. Euh, non c' dépend. non c' est les dépendants quoi ñooñu loolu loolu du proche. Mhm. parce que ñoom ils ne suivent que leurs intérêts. Mhm. ils ne suivent que bis bu ñuy wóoroon ne paa bi yoratul dara. Mhm. ci lay découvrir leur vrai visage. te loolu nag li ci kanam raw li bët. donc ci la ne ñoom nañu nañ ko yóbbu session octobre bu ko defee ñu dugal ko ci. débat orientation bi ñu mën ko discuter. bi loolu amee ñun ñu continuer. di def suñuy investigation. ndekete. Euh, celui qui est derrière tout ça c'est la personne de Damka mmh. promoteur boo xam ne dafa ñëwoon suñu commune def convention public privé pavé hmm. mooy marché HLM fi cantine yi nekkoon euh, table yi hmm. yi fi ñu nekkoon ci tali bi hmm. euh, dañ ne woon dañ koy dindi euh, def fa pavé léegi moom mu mu mu mu commune bi ñu andi ko ci conseil municipal bi bi ñu ko andee conseil conseil municipal bi repoussé ko repousser ko parce que d'accord ñu ci convention bi ni ñu ko proposé. Mhm. ñoom ñu dem changer ko man bokkoon naa sax ci doon ñaxtu pour ñu ñu ñu annuler ko mais ñoom dañuy andiwaat convention bi. Mhm. bi ñu ko andiwaatee ñu changer ko ne dañuy yokk surface bi mu ne day day day pavé. Mhm. boole ci jumaa yeeg ak église beeg yooyu. mais ba léegi il n'a pas respecté so le contrat. bi ma bi loolu amee. moom mu bëgg di tabax centre commercial bi nëbb turam établissement Damka. Mm-hmm. dem andi beneen tour boo xam ne international Touba construction lay doon. Mm-hmm. Euh, la la la la lañu bind ci arrêté bi léegi ñun. Mm-hmm. ñu dem au niveau de l'APEX. ok avec nos relation bi ñu demee ñu ne ñu euh, entreprise bi existé wul ci base de données APEX. ndekete c'était la personne de Damka. qui était derrière dafa doon bañ andi établissement Damka après les conséquences et cetera. bi ñu découvrir la lool nag ci lañ ne xaaral ñu am ñu mën a suñuy enquête. Mhm. parce que ñun ni ñu xamee ni Dame Kala sax parce que dañu ko soufflé mais bi ñu ko xamee ni ñu ko xamee mooy dañu jël suñu téléphone. Mhm. jox ko benn waaye rek comme ku koy ku koy woo di di jënd cantine quoi. Mhm. sur sant centre commercial la. mais bi mu ko wooyee daf na ko cantine jeex na ci lañ xam ni c'est la personne de Dame Ka. kii derrière. Euh, donc am na ay ndëgg sërëx yu bari yu nekk ci mbirum bi ngay wax nii yow. am na lu ci nekk. te mhm. looloo waral coow li loolu looloo waral ñun dañoo bëgg lépp leer mhm. ban intérêt la am di jël ñaari entreprise di ko dugal ci ñaari euh, kii mhm. euh, convention yoo xam ne ci dans la même commune nee na établissement Damka nee na bi muy ñëw en 2017 sax établissement Damka bi mu bi mu andi euh, société la bu mu créé récemment ñëw na dafa am temps d'année expérience raconter des histoires sur kii bi rapport bi te amul loolu dara amul firnde dara amul ci un de un de nos euh, de nos alliés là monsieur Abou Ndiaye que moom moo ñu ko leeral. Mhm. parce que moom dafay yëngu ci loolu. Mhm. mu ne kii mënul am expérience yi parce que entreprise dañ ko créer uniquement pour mu jël. Mhm. Euh, kii pour mu defar convention bi pour gagner marché. tey collective bi fan la jëm kon ginnaaw euh, découvrir ngeen ni am na ay problèmes yu bari yu xew ci seen mairie bi tey fan ngeen jëm ba ci moom sax nee na dina leen yóbbu fa mbaxane doonay benn. ndax am plainte bi yéen jote ngeen moom <laughs> non franchement moom man à chaque fois ñu ngi ma koy loolu moom franchement. jot ngeen plainte wala jotoo leen plainte jotaguñu dara. te te nag dañ ko dañ moom xam nga xamul sax euh, ce se passe il maîtrise pas tout. Mhm. que des fois day dégg man euh, y avait euh, première information yi jot a le temps moo ko bind. Mhm. te li ma bind mooy xaw ma scandale xaw ma le maire a détourné nangam nangam. Mhm. ñun duñu ay journaliste bu journaliste bindee dara nangam nangam mais ñun li ñu mën mooy ñun li ñu wax li ñu affirmer. Mhm. li ñu wax loolu la mën a affirmer. Mhm. mais li journaliste bind loolu intéressé wuñu tey dëggal ngeen li ngeen wax. Mm, dama ne la ñun ay. ay déclaration lu ñu bind bind mémorandum loolu lépp document yaa ngi nii ma teg nii fu ñu dem loolu lañu liir keroog bi ñu nekkee ci salle bi amul dara luñ ci sos amul dara lañ luñ ci sos je pense que il a été bien conseillé que mu mu mu bañ a plainte mhm. waaw ah déet moom déet jotagoo leen waaye taxul taxul non dama mhm. ne ñun dañ ko yàkkamti mhm. waroon nañ ko jël balaa ñu dem Touba ça fait ça fait six na nañu plainte nañu bu ko defee lépp leer parce que ñun amuñu ñun sosuñu waxuñu lu dul dëgg te naxuñu kenn au contraire ñun dañu bëgg dañu fal pour ñu leeral population bi. Mhm. suñu devoir mooy waruñu croiser les bras. Mhm. di xaar information bi ay adversaire politique jël ko di ko di ko di ko utiliser comme kii ñun. bu boobaa on va nous dinañ ñëw ci loolu parce que nee na. yéen ñi nga yéen ñi nga xam ne yéen a toog di wax di ŋàññi yéen ñëpp da ngeen toog ba heure bii. te moo ne am na heure bi nga xam ni jotoon ngeen ko liggéey ci commune bi waaye da ngeen toog ba heure bi commencé di wax xam ngeen ni élection moo jot te ay politique rek moom moo leen tax a jug mbirum politique. non non li muy wax c'est pas fondé élection encore une fois moom xamul sax kañ la ñuy dem élection. <laughs> jàppaguñ ko. waaw pour te dire. élection yi est-ce que ñun dinañ dem élection en deux mille li muy wax c'est pas fondé na bàyyi appréhension politique yooyu muy def. Mhm. nee na yéen ñëpp ay politiciens ngeen. non jamais jamais sauf man de man xam pers man ma man ma personne laa la mën a bien que am j'ai reçu des propositions te man bu ma doon dugg ci benn parti du ma dugg ci seen patron yi laay duggee parce que j'ai des relations avec mm-hmm. mosuma bokk ci benn parti xam la moo tax mm-hmm. parce que seen i jikko ñoo ma neexul leur façon de faire mm-hmm. maanaam dañ lay tënk te man j'ai lis maanaam sama philosophie du foofu quoi tënkuñu la tënk waaw kenn waruma tënk waaw parce que fi fi ma jaar la quoi dama jàpp ni Euh, bu joree ay xalaatam nekk ci dëgg. Mhm. warul kenn waru ko mën a téye kenn waru ko kii. Mhm. quelque soit la maintenant li muy wax naan na euh, am na ñu nekk suñu ginnaaw loolu da koy wax rek parce que dafa ñaaw njott rek. Mhm. mais ñu ci collectif bi mënuñu dem mënuñu bokk sax coalition. parce a toutes les entités politiques. a ci bokk. nee na xam ngeen ni heure bu bu ñu yeggee ci heure bi euh, puisque wàllum politique moo leen tax a jóg te fi mu toog rek yéen ngeen teg seen bët. moo tax ngeen génne loolu yëpp ngeen di ko wax ci place publique moo tax dina leen plainte donc ay politiciens ngeen quoi loolu leen jàppee ndax est-ce que loolu euh, mbirum politicien ba politicien ba moo lalul ba tax ngeen génn wax wala da ngeen xaar ba lu tax ngeen xaaroon ba waxtu bi soo ko génn wala Covid bi moo leeral seen yoon bi daal. non non non jamais de la mhm, kon lan la il a euh, li ma li mu ni mu xalaatee sax dafa dafa ñaaw moom. Euh, d' abord euh, man euh, le coronateur moom xam na ma xëy na ñeneen ñi moom mën na am leneen mais xam na sama jikko mhm. je ne suis pas une personne boo xam ne danga nga koy naan defal li ay ay manipuler manipuler complot bu mhm. ma genre yooyu te ñeneen ñi ma ànd tam la même chose mhm. ñeneen ñi ma àndal la même chose kenn ku ne bi bi mémorandum bi bi ma ñëwee da nga liir xool ni lii jaaduwul nga émerger ñun liñ ko doon laaj soriwul bariwul juste des informations par rapport à ces concessions. te indiwu ko. andiwu ko ba léegi. même li muy wax à travers vos antennes sax. nan na ay commune bi moomu ko waxuñu ay commune moomu li ñu tabax ba pare après dañ ko dama ne. Mhm. naka lañ ko def ba attribuer ko à l'insu du conseil. même bu fekkoon dañuy tàmbalee benn xeer même bu fekkoonte ne da ngaa xeex-xeex ba jot si mhm. boo ko jotee danga nga ko war a andi ci loolu la loi bi wax mhm. da nga war ko war a andi ci conseil municipal bi projet bi bi dañ ko war a teg ci conseil municipal bi mhm. bu ko defee ñoom ñu ñu valider ko wala ñu ñu repousser ko loolu loolu la loi bi wax donc ñun loolu lañ koy reproché loolu lañ koy mën nañoo leeral daal nañoo leeral stade bi tam la même chose parce que avec l'acte trois dafa am ay possibilités yoo xam ne moom munoon na ko def avec la Socabeg. non seulement contrat bi mënoon nañu ko renégocier renou mhm. non renégocier mhm. Mhm. parce que moom respecté wu ko respecté wul contrat bi bu dëgëree bopp ñu def ko mise en demeure et cetera loolu avantage commune bi la mais deful loolu day recevoir la Socabeg à l'insu des conseils yi nga xam ne dañoo bokk ci ci ci monde sport bokk benn mbuus daal non te bokk ci non conseil yoo xam ne comme nu la commission sportive yow fa nga bokk commission sportive waaw bien mhm. Mhm. ñun daf ñu war a associer à ces réunions. te boolewu leen ci. mosuñu cee boole. Mhm. te xam na ko bu baax xam na man xam naa ni du question ay moom daf daf ma xaw bàyyi xel quoi parce que xam na ni je ne suis pas une personne qui regarde les choses et mhm. croiser les bras mhm. xam nga politique ñoom ñemewuñu ay genre nit ñu mel ne man mhm. parce que dañ bu ñu gisee lu jaarul dañ koy tape sur la table moo tax lu ñuy lu ñuy def lu ñuy nëbb wala loo xam ne dañuy mel ne ku lay esquiver je le comprends léegi collectif bi fu mu jëm boo collectif bi fi mu jëm mooy que ñu on attend on attend ces réponses surtout. Mhm. bu bu bu bu tontoo ci li mu war a tontu. Mhm. bu fekkente ne c'est euh, euh, leer na ci population bi. Mhm. lu nit mën a dégg la. lu nit mën a dégg la ñu bàyyi population bi apprécier. mais bu fekkente ne loo xam ne c'est pour. Euh, nëbb li xew. la ndëmal mais nous on lâchera pas. ok on lâchera pas ñun wax naa ko nee naa ko dossier Covid bi non seulement dafa war a leer. mais autorisation construction centre commercial moom mi ko autorisé. Mhm. il savait tout. il savait tout te def nañ ci ay conseil defar ci ay conseil au mhm. moins. Mhm. mu ñëw ne nanga mag nanga mag nanga mais defu ko. defu ko c'est erreur la def. erreur la te gis nga am na loo xam ne bëgguma ci xuus. loolu daan. am am doj la bu ma denc boo xam ne conseil non non non loolu mën naa ko bañ a wax sax conseil waaye na plainte rek <laughs> yaa ngi koy xaar da yéen a ngi xaar plainte bi daal non non na plainte mm-hmm. na plainte mm-hmm. il verra comme ñun du ñu ay nit ñu ñu tiital waaw te nag bu ko neexee plainte bi mën na ko bañ a def ci turu kenn na ko def ci turu Samba Ndiaye ok waaw ok donc gox bi tey di dalal Samba Ndiaye nekk conseil bu commune bu HLM nekk itam coordinateur collectif conseil municipal yu nekk ci HLM fi ñu la déggee ngay wax kon HLM luñ fa war a defar bari na feebar na bu doon bu doon jàngoro kon feebar na. non bari na bari na parce que moom gestion am euh, c' est quoi franchement parce que il se croit que dafa def bilan te deful dara. ah nee na def na fi bilan bu am solo. HLM parce que yoon yu bari mu ngi koy defar. fii nga toog nii fii la toog fii la ko waxee. HLM <laughs> lu bari tey. defar nañ ko ci école yeek yoon yeeg marché beek lu ni mel lu bari lan ngay tontu ci loolu. xanaa d'accord ci yow. non yoon beeg marché bi ma leen nu on a des travaux en construction kii euh, en cours. Hmm. tali bi nekk ci corniche bi noonu loolu xanaa xamoo moom bu amoon ambition dëgg sax loolu warul xaar sax ay ville de Dakar rek ay euh, euh, tali yi ñu defar site port kii ñu def ñu kii ko. Hmm. di xaar ville de Dakar mu defar ko. Hmm. loolu volonté la. xam nga euh, boo jëlee citoyen wu euh, euh, Sacré kii Mermoz Sacré-Cœur mhm. jo nga def micro nga laaj leen ak citoyen des HLM mhm. di nga xam ne ñaan ñi di nga mën a juger les deux maires mhm. moom je vous dis que da doon wax ne dafa jàng ci xalifa mais jàngul peut-être que am na loo xam ne faay la ci moom maire moom mission maire dama jàpp ni kiiwu ko à cent pour cent jàngul maîtriser wu ko non maîtriser wu ko maîtriser wu ko yu ci bëri dama daan ko dama daan dugg biroom di ko junj sax mais. Euh, jàngul si li nga ko doon wax non non non. daf day li muy li ngay wax da koy sous-estimer. parce que ñi ko wër la ak méthode yi ñu xam. mais gis nga Barth boo gisee mu réussir sa sa mission. parce que il a beaucoup appris sur Khalifa. maire du dara lu dul teewal population bi di di lu ñu loo njot ni lii. lu baax la ci population nga def ko. Mhm. loo njot ni lii baaxul ci population bi nga taxaw euh, kii ko. lu gën a jàmp HLM. waaw HLM li fa gën a jàmp euh, mooy que yoon yi ngay wax ci la mhm. bokk. Mhm. parce que am na yoon yoo xam ne bu tawee moom. maar maara day bi si waaw ak boucher beeg onance bi am na ci tali yoo. xam ne assainissement bi assainissement bi moom franchement. dañ ko war a defar quoi. marché bi tamit ci ci la bokk. marché bi yéen xanaa amu leen ci koom bu baax parce que nee na fii li muy am ci marché bi li ñu ngi foog loolu nekkul lu am parce que li ñu ciy jot ci recette bariwul. waaw mais mais loolu mais loolu gestion la gis nga am na loo xam ne gis nga bu bu ko bu ko defee ni mu ko war a defee. Mhm. kon lii yëpp du problème yëpp du am problème yi muy wax yëpp du am. Mhm. te bien que nag am na fa ay recettes. Mhm. certes que recettes yi je sais pas. est que dina ñëw. à la mairie et tout ça mais marché bi am na fa ay recettes. Mhm. y a bien des recettes. est-ce que jaruwaat ñu xoolaat marché bi anam buñ ko yoree wala defarat bi euh, ngir mu gën a mën a ñoŋ boole leen ci yéen conseils yi. non moom kañ euh, il a sax a façon de faire man jëmu dama lay jox benn anecdote rek. Mhm. ñun commission sportive lañ bokk. Mhm. suñu premier année magistère dañ doon organiser benn tournoi euh, tournoi. ci gox bi tournoi de football pour le maire même. mais gis nga je vous bi ñu démarré suñu propre xaalis la ñu jël. Mhm. Euh, pour financer tournoi bi. est-ce que mhm. loolu jaadu na ba mujj gi sax moom mu am ci bor boo xam ne pour mu fay ko sax problème la. mais c'est extraordinaire. Mhm. gis nga loolu am na yoo xam ne boo koy wax la la commune mais les gens ne vont pas vous croire. ñu la gëm. duñ la gëm. parce que Samba kon HLM feebar na ni ngay wax nii de. no dafa feebar dafa feebar moom nag il croit que il a tout fait. Mhm. c' tout à fait le contraire. ak seen nomination yu bari ci commune boobu yëpp. Mm, mais nomination yi c' est des nominations de APR politique loolu moom sa ah, bon je pense que à leur niveau ñoom tam ñu ngi def ay efforts. Mhm. parce que tam ku ñu namee tam waxuñu la surtout parti au pouvoir da mhm. def ay efforts. waaw loolu moom ñoom ñu ngi koy def loolu kii la mais man commune bi laay wax. commune bi lu baree baree bari. def waroon na ko def. boo doon noté gestion maire bi 2014 ba tey da nga jàpp ni lu luñ ci def néew na. lu néew la lu néew la loolu. loo xam ne nit mun na ci teg loxoom nga ne ci maire ci ci ci commune bi. non dama ne la ñun suñu. pavé yeeg yi mu nekk di def. pavé de quoi. pavé mooy espace wu euh, kii boobu loolu mooy pavé. nee na day yegg de. non day yegg depuis six ans mais quand pavé du lu extraordinaire. du loo xam ne de maanaam maire sax war na taxaw di naan li sama exploit la sa veut dire que c' est à leur niveau moom xam nga ces politiques là. Mhm. non je pense que xam naa ne HLM dina yéex a dem tant que du ma du ma condamner les politiques de mais mhm. am na ñoo xam ne leur façon de penser. Mhm. ñooñu gëwuma ni ñooñu. mën nañu yore HLM. ba mu am une réussite à cent pour cent. Samba yow kon parce que c' est naam élection yi amul dar eh? xëy xamul ko kañ la. Eh? ndax yow pare nga pour samp sa ndënd kon li ngay wax nii pour jubbanti HLM. E? <laughs> non non non am nga ambition pour jiite commune bi. non non non non pas non non non je euh, pas pas encore parce que xam nga tam nit da ngay da ngay il faut savoir s' euh, organiser dans la vie. parce que mmh. man. Mmh. dama am ci yu bëri yu ma bokk yoo xam ne bon je pense pas que. politique bay si gën a néew. poli waaw politique bay si gën a néew. te moom ñoom ñi ma sama collègue yi sax des fois dañ may découvrir dañ may gis ci benn endroit ne ma ndekete nangam nangam. parce que du ñu xam. nit ki waaw du ñu xam nit ki. Mhm. donc. Euh, mairie bi euh, soxalu la daal. mairie bi soxalu ma mais mais mais doxalinu ask euh, commune bi soxal na ma. ok ok waaw soxal na ma parce que man bien avant may nekk conseiller. Mhm. nekkoon naa nit koo xam ne maire yi fi nekk yëpp xamee nañu. Mhm. dama daan toog seen bureau di revendiquer. des choses yoo xam ne. c' est envers la population. ok donc loolu sax moo ñu motiver ba bi ñuy defar liste bi sax man j' étais prêt pour céder quelqu' un d' ñoom dañoo refuser na ma vous da ngay da ngay bokk. donc ça veut dire yooyu yëpp. Mhm. ñun ñun euh, euh, euh, te te yëf yi. Mhm. di di ko doxal atam à votre manière. Mhm. loolu taxu ñoo jóg mais dañoo bëgg rek yëf dox. waaw loolu la quoi. ok Samba émission bi jeex na une woon. Euh, am na loo xam ne bëgg nga ko wax te mi ngi sa te laajuma la ko lan la. waaw no waaw presque bon je pense que bon bref lépp mënuñu ko wax quoi. Mhm. lépp mënuñu ko wax parce que document yi yi ma yore yëpp. bëggoon mhm. naa des explications. Mhm. Euh, bon par rapport à, la population ñu ñu leeral. comme moom dafa ñëwoon fii. wax. man ma am droit de réponse loolu tax ma ñëw fii j'ai refusé deux invitations mhm, merci beaucoup waaw donc mhm, mhm. dama ko def parce que euh, dama ko def parce que euh, devoir la mu leeral la waaw mu leeral askan wi li li nga xam ne boobu la ñu ngi koy dox te incha ñun duñu bàyyi tant que ñu ngi gis loo xam ne. dafa lëndëm wala dafa lëndëm. Mhm. dañ ci teg suñu loxo ne lii jaaduwul. ok en tout cas ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax ci sa disponibilité bi ci oyof gi di souhaiter rek ñi nga xam ne ñu ngi dem ca yoonu tubaab bi di leen di wax rek bonne route ñu daw ndànk def ndànk rek ci li nga xam ne nag moom moo jëm ci màggal gi sant sama ñaari techniciens yi Adama Diallo ak Baba Aydara jox leen dig daje beneen dimanche ak beneen invité ci émission gox bi incha allah